dal leen jàmm ci émission bi di ruban rose ci euh, TFM euh, télévision Futur Média mais c'est un programme du groupe Futur Média TFM RFM journal Observateur IGFM toutes les entités imprimerie ñëpp ci bokk soob seen loxo ci xeex bi mooy sunu participation ci xeex bi nga xamante ne moo jëm ci euh, cancer bi jàpp ween ndax sonoon na jigéen ñi loolu fii ci Sénégal bi mooy premier numéro bi nag ñuy euh, dalal euh, présidente LISCA di docteur Fatma Guenoune docteur Fatma Guenoune ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Awa di la remercier vraiment ni ngeen jàppee ci xeex bi ci Sénégal. Euh, xeex bi tey euh, yaa ngi fàttaliku daaw sa waxtaan ak Youssou Ndour moom moo moom moo effectivement euh, moom jàpp na ci liggéey bi wax ne ne nañuy def ay émissions pour gën a waxtaan ak askan bi avant démb sax avant daaw yéen da ngeen yàgg jàpp ci lutte contre le cancer saa yu octobre rose commencé groupe. Euh, GFM jàpp ci amul rajo amul télé lépp li nga xam ne ne mun na xeex yee ngeen ñuy bunge pour waxtaan ak askan bi di yeete ci xeexum cancer xeexum cancer. moo ñu euh, war euh, docteur euh, Fatma Guenoune kon tey mooy émission bu njëkk di ruban rose ñun ñëpp ku nekk takk nga sa bos ana sa bos mi ngi nii di jëmmal li nga xamante ne moom mooy xeex bi fépp ci àdduna bi foo mën ci dem nit ñi lii la ñuy waxtaanee cancer bi jàpp ween ndax dafa sonal jigéen ñi wàññi bi liskaam ren ñoo ñu ko wax nee nañu 1838. 38 1838 cas nouveau cas. nouveau cas. chaque année ak 876 décès. malheureusement 976 décès. malheureusement docteur waaye xam nga ren moo nekk 15e édition bi Sénégal bi mu ciy jubloo ba léegi at mu jot muy ñaax di wax di informer askan wi di jot xibaar yi tey bu ñuy def bilan ndax wax ji am na njëriñ. am na njëriñ parce que soo wootee nit yi ñëw wax bi am na njëriñ tey rek euh, ci suba bi ma xoolee ñi ñëw ñu consulter leen. ci aujourd'hui 7 octobre dans la journée on avait 300 femmes ñu ñëw donc loolu la wax bi am na njëriñ euh, ñi ñëw parce que dañ leen di wax bu ñu xaar am dara mhm. ñu ñëw ñu seet leen donc loolu la euh, am na njëriñ parce que nit yaa ngi ñëw di dépister di téléphoner di laajte euh, yan gox la ñuy dem ak yooyu la donc ñëpp ngi seen wérgu yaram suxal na leen. kon ñii ñëw moo gën a yokk bu ñu ko méngaleeg yeneen at yi. Mm-hmm. ñii gën a teel a ñëw mi ngi gën a yokk bu ñu ko méngaleeg at yeneen at yi ñi ci gën a teel a wér mi ngi yokk bu ñu ko méngaleeg yeneen at yi. waala donc teel a gis teela faju mu nga wér. c'est le message clé euh, bu octobre rose dépistage précoce boo leen ko déggee nag mooy teel a jug teel a faju te a wér toog ci sa njaboot uuf leen lu ci am solo la am na ñoo xamante ne amoon nañu ko faju nañu wér nañu ñi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ñu leen xalaat bu baax di leen ñaanal fi ñu nekk mu gën a leen fi ñu jógee xeex baa ngi wéy duñu ko bàyyi octobre rose docteur bu ñuy wax cancer bi jàpp ween si jigéen nan lañ ko mën a màndargale xam nga euh, cancer ween bi euh, ween cër la mhm. Euh, donc jigéen bi dafay suy làmbatu ween parce que c'est le aussi où dañuy def promotion auto examen de seins mm-hmm. su làmbee donj ci weenam bien que donj yëpp du cancer mm-hmm. donc donj lay euh, prés euh, commencé ci ween bi donc teel a gis donj bi dafa am solo pour teel a faj def sa diagnostic nga faj ba nga wér péng yaa ngi wax donj waaye tamit melokaan bi mën naa soppeeku waaw xam nga donj bi su demee ba am benn taay euh, deru yar euh, ween bi mun na soppeeku ween bi mun na gën a xawa a lëndëm wala mu tàng walla mu luisant mu mel ni luy melax mhm. yenn saa yi dinañu dem ba mu mel ni man deru orange mhm. mooy ne boobule cancer bi quand àgg na ci benn stade. Euh, ñun li ñu bëgg soo làmbatoo sa ween daj ci dara rek nga dem kër docteur bul xaar yenn yeneen signes yi nga xam ne ne euh, euh, peau d'orange li ñuy wax phénomène de peau d'orange mu mel ni deru orange. Mm-hmm. loolu boobu feebar bi sori na te commencé na tas. donc loolu le bëgguñu ko fa agsi donc jigéen ñi war nañu mun a def mammographie ween. rajo ween rajo ween bi ñaari at yu ne su de 40 ans suñu xasee ba am ñeent fukki at war nañu mun a def rajo ween ñaari at yu ne. parce que bu njëkk ba dañ doon wax naan mag ñee koy am juróom fukki at jëm kaw juróom benn fukki at mais léegi xale yi ñu amagul ñeen fukki at sax docteur dañ koy am. voilà loolu moo tax sax euh, ñun ñu gën a tàmmali rajo ween bi. Mhm. parce que gis nañu ay xale yu am 21 ans yu am cancer ween. te amuñu sax ay antécédents familiaux mm-hmm. parce que xam nga cancer ween bi mun na nekk ci ndono mm-hmm. donc euh, dono boobu boobule ñi bokk ci giir yi am cancer mm-hmm. war nañ leen bàyyi xel donc mais yii ñu gis léegi moo bari te amuñu benn antécédents familiaux de cancer du sein donc moo tax ñu leen di jàngal naka la ñuy làmbatu ween euh, ailleurs cancer wu mag la woon mhm. même fii cancer wu mag la woon mais dafa am ay facteur favorisant yi nga xam ne ni moo soppeeku si facteur yooyu la ñuy dikk docteur Fatma Guenoune ndax ne ngeen yenn docteur yéen a ko wax xamu leen lu koy joxe waaye lu koy sabab ba mu yomb ba risque yi ëpp ci nit ki mu am ko loolu am ngeen yoo leen ci njot li ñu ko rek tënk bi waa loolu le xam nga pour cancer ween dafa am facteur à mais cancer yëpp dafa am facteur yi nga xam ne ne te eh, yooyu la yim lay limal nii bokk na ci joxe cancer wér mooy sàngara si mhm. cigarette si mhm. yooyu moom responsable na ci bu baax ci cancer yépp Euh, ñàkk euh, lekkin bi mhm. lekkin bu sellul mhm. euh, alimentation malsaine lekk yàpp ñàkk lekk légumes ñàkk lekk fruit yooyu lee dafay tax ne ne cancer mhm. bi daf lay yàpp ñàkk tàggat sa yaram loolu le cancer bi daf lay yàpp donc foog nit ci di def sport def activité physique seen biir kër ci am solo daf ci am solo yaram bu bari dafay dafay tax ne cancer bi daf lay yàpp te cancer yëpp sax daf la yëpp surtout cancer wu ween te dina ci ñëw su may wax ci facteurs yi nga xam ne ne ay ca continuel ci facteurs euh, facteur cancer wu ween dafa am ay facteurs endogènes comme yan mooy ne déjà teel a gis baax mhm. xam nga nit ki mënu ci dara mënu ci dara mais war na bàyyi xel ci moom ci moom waajurum yi war nañu bàyyi xel ne ko ah yow euh, gis nga sa baax avant douze ans mhm. nga yéex bàyyi faute mhm. après cinquante cinq ans cancer bi dafa lay yab. daf lay yab nga ñàkk nampal. Mhm. parce que defu d'allaitement dafa am solo. Mhm. Euh, nampal bi dafay aar jigéen ñi ci cancer. Mhm. ba pare teer yéex am doom. loolu tamit facteur favorisant la parce que soo teelee am doom teel ko nampal nampal ko ni ñu la ko waxee. dina protéger sa yaram. dina protéger sa organisme. yaram bi ñuy wax ni soo amee yaram mhm. euh, graisse bi nekk ci sa yaram dafay produire hyperœstrogénie mhm. hyperœstrogénie boobule facteur favorisant le cancer mhm. donc ba pare am na beneen stress bi bi euh, bu la ko fàtte docteur euh, stress bi moom laay mujjee tax ma koy mujjee parce que stress stress bi mooy facteur déclenchant Euh, soo gisee yenn jigéen yi ñu am problème ci seen liggéey. am problème ci seen foyer. am problème euh, yenn saa yi ñu ñàkk seen jëkkër wala. xalaatu àdduna rek. xalaatu àddina dépense beeg lépp. Mm-hmm. nga euh, dafay déclencher. Mm-hmm. li nga xam ne ne boobu amoon nga facteur favorisant yi mu déclencher ko. Mm-hmm. donc c'est un facteur déclenchant du cancer. kon euh, docteur tënkal nga ñu li nga xamante ne mooy facteur de risque yi euh, jëm ci cancer bi euh, jàpp ween docteur ci fagaru bi gannaaw dépistage précoce bi yéen a ngi koy wax chaque jour daanaka ñun dañu ko dañu ko mokkal sax ba di ko réciter léegi ci yeneen mesure de prévention yi lan la. xam nga mesure de prévention yi ñu ngiy ñaax jigéen. Mhm. soo xësee ba am ñaar fukki at nga commencé di làmbatu sa ween li tubaab di wax autopalpation wala auto di xam suñu suñu yaram xam suñu yaram nga commencé soo gisee sa règle ba pare ba sangu set nga commencé di làmbatu sa ween mun nga ko def ci douche bi sooy sangu diw pour nga gën a mun a palpe sa ween da ngay taxaw nag di xool sa bopp nga xool ko ci kalam xool ko ci profil yëkkati sa ay loxo sëgg pour xool ndax sa ween amul coppite bu fa bu fi nekk te nekk fa woon. Mhm. nga commencé nag di làmbatu sa ween. Mhm. sooy làmbatu nag sa loxo yi doo ko doo bës nii ween bi dangay mhm. tàllal. nii ngay def sa baaraam nii ngay def sa baaraam. nga commencé di làmb di wër fépp. soo paree wër eh, làmbatu ween bi nga jël sa poxotaan. sa loxo yi nga def ko encroché nga seet nga seet sa poxotaan pour xool ndax amul caxar. parce que caxar boobule. mun na nekk cancer. bu nga xam ne ne wane na cancer bu bu nga euh, loxo làmbul mais bu nekk ci sa poxotaan nga jël sa ñaari baaraam bës sa cus. parce que ndox soo amee ndox bu génn melokaanu ndox boobule. ci melokaan yi am na yi nga xam ne ne dafay euh, tey xel dana ne ah kii de cancer la lu mel ni nga gis un moo sanguin mooy mu deret génn wala lu ñuul génn loolu le mun na xayma ne ah lii ci nekk de ci ween wu soxna si cancer la donc. Euh, docteur xanaa seen ticket yi ngeen doon maye consultation yeeg mammographie yéen a ngi ci ba léegi. ak ah, commencé nañ ko fii ba le 31 mhm, octobre la. Mhm. du premier au 31 octobre euh, jigéen bu bëgg saytu sa bopp. da ngay ñëw LISCA jël sa bon nga dem ci sañu ay radiologue partenaire mm-hmm. donc euh, bien que état bi léegi gën na far fagaru mm-hmm. farlu pour euh, inciter hôpitaux yi ñu def la mammographie à quinze mille donc euh, ñun quinze mille francs la ñu waxtaan radiologue privé yi trente mille francs la ñu koy defal mm-hmm. suñu ko defalee trente mille ñun ñooy fay trente mille francs bi ci des après campagne bi loolu moo tax ñu wut ay subventions. Mhm. donc ku bëgg a def sama mamo à partir de 40 ans nga dem LISCA jël sa boo ñu nga fa. à partir de 7 heures ay docteur ñu nga fa tamit. ku bëgg ku bëgg saytu sa yaram ñu xoolal ñoom ñu xoolal la ko. kon euh, xibaar baa ngoog euh, siège liska LISCA ca Sacré-Cœur képp koo xamante ne bëgg nga dem saytu sa yaram mu tombeek euh, li nga xamante ne docteur Fatma Gueye wax na ko ci ay at ak ay melokaan nga dem xool ñu saytu la sa yaram wala ñu jox la bu ñu noppee jox la bon bu nekkee aajowoo na ko ndax du ñëpp la ñuy jox bon docteur Fatma Gueye moom moo jiitee liska di Ligue sénégalaise contre le cancer du kuréel gi nga xamante ne ñoom ñooy xeex jàngoroy cancer fii ci Sénégal ñu nekk ci octobre rose ci RFM ruban rose ñëpp ko yor ci euh, weer wi ndax weer wee ko laaj bu ñu ko fàttee nañuy ñaax borom kër yi ñaax soxna yi ñaax njaboot gi ñaax askan wi yëpp ndax cancer bi euh, jàpp ween dafa war a jukk ci Sénégal jërëjëf jàmm ak jàmm